alors tout simplement ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax. alors ginnaaw bi nga génnee prison ba pare ak nattu bi la dal ba pare euh, ban yëg-yëg nga am ak retrouver ak société civile. waaw euh, mbégte rek euh, fierté laa am vraiment euh, pour retrouver encore sénégalais yi fekk leen ñu continuer seen engagement seen détermination pour xeex mbirum démocratie loolu vraiment fierté laa ci am day wane ni ñu ci ñàkk seen bakkan ñu ci gaañu ak ñu ci jot a tëj seen combat niilul donc li taxawaay sénégalais wane na encore une fois ni Sénégal jaral nañu lépp. ngeen dugg kaso génn ñu leen yi comme des héros est-ce que nekkul victoire ci démocratie sénégalaise waaw xam nga euh, boo xeexalee sa réew ba dugg kaso boo ci génnee euh, fierté rek nga mën a am fierté nga mën a am parce que li la waroon yow en tant que euh, citoyen def nga ko donc loo ci mënta fekk sa intérêt réew moom boo ci xeeb dugg ci kaso fierté la te mais rafetlu vraiment di kontaan vraiment sénégalais yi euh, nu ñu jàppee nu ñu accueillir vraiment nu ñu dalale en tout cas teel ñu gën a engagé balaa ñuy dugg kaso bi teel ñu gën a engagé pour continuer xeex bu ñu nekkoon. ah détenu yi nekk biir kaso également ñu bëri dañuy ñaaw seen condition yi fa nekk ak euh, lan nga ñu mën a jox comme témoin. waaw euh, lu ñu war a wax si kaso moom mënul xej fii mais. Euh, je crois que euh, kaso yi moom euh, war nañ ko améliorer bu baax améliorer ko rawatina surtout boo jëlee aspect administration pénitentiaire war nañ leen defal recrutement yi doy. vraiment jox leen vraiment jumtukaay yoo xam ne nécessaire pour ñoom ñu mën a def seen liggéey correctement parce que tamit il ne pas de dire que conditions yi baaxul il s'agit de voir d'abord est-ce que ñu jox liggéey bi est-ce que ñoom am nañu lépp loo xam ne soxla nañ ko donc amuñu effectif bu doy amuñu euh, jumtukaay doy je pense que foofu mooy premier baromètre boo xam ne état bi war na ci taxaw deuxième baromètre bi mooy il faut que ñu tabax tam ay conditions boo xam ne da ko war a si condition yi mu war a nekk suñuy xar yi suñuy mala yi ñuy yar sax duñ leen jël entassé leen dugal leen fenn dañ leen di may mala bu nekk day am au moins foo xam ne su bëggee tëdd dallu sax mu dallu boo nekkee si kaso boo xam ne euh, même pour nga tëdd sax mu amoo ko loolu lu doy waar te boo gisee ni ay nit ñoo koy def ay nit ay doomu aadama da ngay ne waaw mais daa mel ni sax nit ñi dañuy daganal esclavage bu amoon fi nga xam ne ñu ko def suñu maam yi donc lu ñu war a changer dafa bëri dañu a changer xoolaat encore statut euh, administration pénitentiaire tabaxaat kaso yi bees yokk condition yi je pense qu'en ce moment là condition yi a nekk acceptable quand même. alors Macky Sall woote na nee na loi d'amnistie lañ a def en tout cas pour bàyyi ñi nekk kaso bi yëpp yow loolu loo euh, man da man de euh, lu ma ci mën a wax mooy gis nga am mbirum amnistie boo xam ne dafa am ñu ci faatu am ñoo xam ne dañ ci am seen bëtt tuuru ñii seen loxo dagg ñii ñu dem ci kaso mënoo tëb tëb rek amnistie ay nit boo bëggee am nes amnistie ba ngay ne pour nit ñi baalante am réconciliation dafa am fooy tàmbalee fooy tàmbalee d'abord mooy vérité vérité mooy fexe ba ñu xam lan moo waral lii yëpp kan moo def lan lu tax mu def ko buñ koo xamee nag ba pare ñu def ñu teg leen ay daan bu leen tegee ay daan ba pare ci loo ñuy doog a nag mën a toog léegi xool nag ndax mën nañ leen baal wala jéggal leen pour que bu mu amaat. mais tëb tëb nii rek waxoolu xew ñu def ñu ngi fii amul enquête amul dara bëgg a def amnistie loolu dama jàpp ni ay caaxaan kese la na bàyyi moom mënul toog ba fin mandaam def lu mu def yëpp jékki-jékki rek ne day amnistie mënu fi amnistie dara moom acteur la si ñaawteef bu am si biir Sénégal donc moom la ñu war a amnistie mais moom moo war a amnistie boppam donc na toog mu dal mu xaar président bu fii ñëw bu ñëwee mu seytu lu fi amoon yëpp ku ci nekk sa responsabilité ñu situé ko bu boobaa ku ci war ku ci mérité sanction yi sanctionné la comme ça bu ëllëgee keneen ak sa meneen morom du am sañ defaat loolu ci la ñu mën a doog a mën a tabax réew boo xam ne nit ñi nañu jégalu jégalante baalante mën a doxal. mu am beneen injustice bi nga dund mooy bi nga génnee post bi nga nekk ñu ñu ñu dàq la fal ndax xam da koy considérer comme a acharnement. waaw loolu amul solo loolu dee wonee rek loolu sax mënoon naa ci sa bañ a épanché wu mais dama bëggoon wan wan wan wan wan. ñoom nu ñu gàttee xel ak seen petitesse d'esprit loolu laa leen bëggoon woon rek mais loolu ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax am naa samay morom yoo xam ne jàng nañu ba pare amuñu amuñu liggéey donc boo ñëwee tey pour ay considération politicienne génnee la fii dàq la fee yooyu mettre la au au frigo loolu man amul dara lu muy changer sama engagement amul dara lu muy wàññi si sama taxawaay si pour réew mi. Euh, beneen question bi tey F24 woote na manifestation bu rëy pour dénoncer euh, dialogue bi président Macky Sall woote altine ak alarme. en tout lu gën a lu mën a leer mooy ñu nag Macky Sall fii ba le 2 avril le 2 avril bu jotee nag nañu abal suñu réew bu muusee am xel dina fexe balaa le 2 le prophète bu ko defut nag le 2 dinañu abal ñu ñu xam lu ñuy def suñu réew. benn message à l'endroit des Sénégalais. waaw mais wax sénégalais rek nañu jog taxaw mobiliser ñu jóg taxaw mobiliser. benn réew tey réew ñu nit ñi di xëy di bëgg a dem ay France ay Europe ay États-Unis ay Canada kenn xëyul rek tabax ko si benn fan ñu fa dëkk si réew yooyu ñoo taxaw xeex ba démocratie am ñoo taxaw fexe ba pousse ñuy yor réew mi ñu jub ñoo taxaw fexe ba transparence am donc loolu bu amee si dëkk yooyu ñun fii Afrique mën nañu taxaw ñun sénégalais yi xeex fexe ba suñu réew am démocratie fexe ba ñu ñu jiite jub fexe ba lu fi war a am am ku ci nekk si réew mi am sa liberté sa démocratie tegu si yoon liggéey la war a liggéey suñu suñu dëkk bi avancé buñ ko defut nag croiser les bras foog ni kenn na jógee feneen pour ñëw sóobe ñu loolu mënul nekk ñun ñoo ko war a xeexal donc sénégalais yi gis nañu seen mobilisation seen taxawaay nañ ko continuer gën ko sàmm benn question si rek